gan gi Moussa Diakhaté porte-parole parti Bokk Gis Gis euh, nekk itam euh, ku ñu investir ci euh, élection législative yi ci liste coalition Bokk Gis Gis liggéey Moussa ñu ngi lay nuyoo soxna si maa ngi lay fay di la nuyu di nuyu seen auditeurs yi leen di suivre. ñu am mbégte la ci matinalu réew mi FM tey tàmbali nag ak kaddi Ousmane Sonko yi mu yëkkati eh, teg ci kaw yeneen liste opposition bi yu dul yi ak Wallu ne ñoom ñëpp Macky Sall moo leen samp loo cay tontu. waaw du li ma ciy tontu rek damay nuyu d'abord ñi nga xam ne ñooy seen auditeurs yi di fe rek ni effectivement dañ maa investir ci juróomeelu place ci liste nationale. loolu Ousmane ko wax nag ni man maa baax ñeneen ñi ñoo bon ci dégg-dégg ku dese xel di nga xam ne du waxu nit du waxu responsable jàpp naa itam du waxu kilifa yàlla nag dafa def dafa am nu muy politique te campagne bi bi mu tàmbalee ma am lu ma lancé woon ni na rafet na rafet ci wax ji na rafet ci jëf ji waaye waxam jooju dul wax ju ñuy rafetlu te wax ju teguwul la jàpp naa ni sa ñenn ci ay ñooñam gëw mu ni danañ waxee noonu Moustapha Sare bi nga xam ne dañuy daje ci ay plateau yu bari jàpp ma ni dana wax wax ji jàpp ma itam ni Pape yi dana waxee nii wala biram Souleye bi nga xam ne dama ko xamee bopp Ousmane nag moom euh, dama jàkk ni euh, tayul yenn yi tayul yenn yi nga xam ne ni mu ngi koy mu ngi koy wax su fekkee ni bi mu koy wax bëgg a falu kese moo ko ci dugal maa ngi koy wax ni ko na ratifié wax jooju su dee nag daf ko def tayeefu boppam wax lu dul dëgg ci Sénégal yi ce serait encore très dangereux te damay faral di wax ni moom nag bëgg na toujours di xëcci euh, couverture bi moom ñu koy wax di ko tudd barki dem boo njaay déggoon ngeen fi biñ ko jiiñee waa PDS tey ñoom la ñu àndal te ci moom ñoo bokkoon ci ko doon wax de barki dem boo njaay defoon nañ ko buggaan ngay daani dras dañi xëddeem euh, loolu nag su jubee ci langue politique gi surtout ci kuje gi dafa mel ni dafa am beneen projet bu lalu ci ginnaaw maanaam bëgg a wala tas euh, kuje gi ni ñuy doxee waxi Ousmane yooyu daal jàpp naa ni jarta dóor say doom ndax itam nag euh, bari na lu muy wax après mu news dem ba ci biir gis ni la muy wax yëpp waxi bës ko ci dugal waaye tegul fenn fu wóor hmm. ci mujj rek ma koy jël firnde mooy kooku ñuy wax euh, sëñ bi Seck dañu jéem arrêté woon ko ci affaire force spéciale yi jéeñoon ko ci ba mu rëccoon ci biir waxam boo ko dégloo conférence def hmm. mu ngi ci wax ni sax daa mel ni ku ñu rey te gis ngeen dég déem ñu niñ jëlaat ko koo xam ne say wax du mat weer nag euh, jarul nga ciy sonn su ko Khalifa Babacar Sall waxoon nga xam ni homme d'état la xam naa ko ci su ko Aïda Mbodj waxoon ma xam ni homme femme d'état xam naa ko ci wala Malick Gakou ñooñu miin naa leen xam naa leen su boobaa dana jar wax ju taxaw waaye daal jàpp naa ni wax ji du waxu kilifa du wax ju tegu du wax ju rafet waaye nag du nu bett honnêtement su fekkee ni euh, loolu la gëm loolu la wax te teguwul fenn leneen li ci des nag Sénégalais yi dëkkuñu kooku sa wax matul weer boo jógee di wax defe naa ni maanaam daal ci gàttal Ousmane nee na nawloo ci biir wax moom moo baax ñun ñoo bon loolu nag dañuy bàyyi Sénégalais yi ñu apprécier man nag Moussa Diakhaté ku ma nawlowul boolewu ma la ci samay nawle te yàlla baax na te yàgg yàgg bawul dara. wolof euh, lépp na ni seytaane waxul dëgg waaye yàq na xel ndax ragaloo wax ji indi ji xijaaxa xëy na ci bopp ñenn ñi. xam nga nag Sénégal moom ñi bëggee gëm danañ gëm ñi bëggut gëm duñu gëm. Euh, ndax nag moom Ousmane Sonko bari na lu mu fi wax loo xam ne nii buñ demee ba ci biir ay na yéwén dara du ci dëgg loolu yi dëgg yi sam parce que euh, damay faral di wax ni phénomène mooy lu xew léegi lëmbale réew léegi waaye du yàgg mu demaat léegi te moom dafa bokk ci phénomène loolu am na nit da koy nangul ci ni jamono waaye dama ni bari na lu mu wax loo xam ne nit mën na ci teg baaraam te amul xam nañ ñitam nit ñi ay nit ñu koy jàppale Euh, ci wàllu koppar tey gagné marché yu bari ci état bi waaye ñun duñ ko utiliser comme arme ñun jàppuñ ni gàkkal sa adversaire moo lay may li nga bëgg ñun li ñu jàpp mooy li tax sénégal yi di la bàyyi xel di la jot mooy li nga leen di andil te moo amal leen jariñ waaye du jéem a gàkkal wala euh, accuser sa sa sa wujju ci politique koo xam ne da ngay xëcc muy xëccu fi ñu doon xaaree kay Ousmane mooy mu wax ñu euh, ñan ñooy seen candidat ci élection yi ñu jëm parce que tam nag assemblée ba Euh, donte ñoom moom du candidat demul bokkul ñan lañ bëgg yóbbu assemblée nit ñi bàyyi xel ci ñooñee xool ndax ñooñee seen i jikko làmboo nañu assemblée ba ñu bëgg ak lan lañ xaatim comme programme waaye du ci ay xëy di di di taxi nit ñi wax joo xam ne ni jàpp ma ni nit ku dese xelam dina ko def politique nag dafa am loo xam ne li ñuy wax narcissisme politique maanaam koo xam ni moom lu baax ci boppam la jiite moom rek moom képp moom dong keneen baaxul leneen baaxul loolu nag bu dalee nit dama ni du tayee feebar la bu nit di faj lii ak yeneen di firndeel ni euh, opposition bi dañoo tasaaroo jamono bi ñëpp di xaaree ci ñoom ñu booloo doon benn ngir mën a xëy na euh, am ay ndam ndax lii euh, mënta xëy na indi mënta indi ngeen ñàkk élection yi ñu dëkkmal. waaw damay faral di wax ne am ak ñàkk moom yàlla rek ko yor ci mbiru élection mbiru fal moom mbiru yàlla la dañ defee yëfu nit ba pare dañuy bàyyi yàlla def di wax itam ni élection bokk ñëpp bokk ànd mën gëwuma loolu. ñëpp def benn say gëwuma loolu. Hmm. dama ne ñi mën a ànd nañ ànd ñi niroo jëkkoo ñi bokk nañ ànd. waaye li xew ay na yeween mooy ne am na ay élection am na ay coalition électorale souvent nag day nekk coalition de circonstance maanaam li mbir nee na kët ne jonn nañ daje wax ci man nag li ma gënaloon mooy moo am li ñuy wax ay coalition programmatique ay coalition politique ñi bokk nu ñu gisee ñi bokk nu ñuy xalaatee ñi bokk fi ñu rootee ñu ànd loolu nag amul effectivement dafay jur après pëccëxoo mooy li xew rek xam nga ni jël xeer sànni ko ci ay opposant defaroo diggante waajaloo ëllëg bés bu nekk nag bés lay waajal loolu itam bokk na ci liy tasaare njaboot gi bokk na ci liy wàññi chance opposition mu mën a am une cohabitation mais mooy objectif bi leneen li ci des nag mooy ku nekk après da jël sa responsabilité par rapport ak yooyu nga xam ne xew na yi ñu wax mais constat bi waxee am na juróomi ñetti liste yu am juróom benn juróom ñaar yëpp defe naa ni ci ñu yëpp ci kujje gi dañ nekk bu ñu gënoon doon ay say doon na gënoon ëpp doole waaye comme ni ma ko waxee rek ni dafa am problème mu sincérité daa am ñoo xam ne ni dañuy opposé wu pour def pression am ñuy opposé wu pour opité am ñuy opposé wu pour leneen aussi kon li may wax di faral di wax rek mooy ci kujje gi dafay manqué de sincérité et de solidarité li ci ëpp mooy agenda yi bokkul ku nekk daa am mel ni sa cugalu bi loolu nag mooy fés après ci liste yi mooy fés après ci élection yi waaye li am solo ba am solo mooy am taxawaay bu am solo wax Sénégal yi lu leen di jariñ ba boo demee assemblée nga mën leen taxawaay taxawaay bi ci war bañ a saaga a xaste te muy rafet ci wax rafet ci jëf bi juróomi fan nga ci des ngir ngeen mën a wax askan wi noonee nga ko junjee léegi ana ci lan nga jàpp ne lan war a gën a taxaw ngir xëy na gën a ñaax sénégalais yi pour ñu bàyyi xel ñi war a dem assemblée nationale ak biral xëy na la ñuy xaar ca ñoom. waaw xam nga assemblée nationale bi moom campagne bi. gars yi dañu dénaturer campagne bi ñenn ci gars yi mooy sama gars yi nga xam ne sa waruñu woon bokk muy euh, Benno Bokk Yaakaar nga xam ne ni tata mi yaayi joor moom fu mu dem réalisation président Macky Sall yi rek lay génne waxaguñ ba léegi ñoom ni ñu ñëwee taxawee assemblée ak ñan la ñu fay andil noonu itam la amee ci yeewi askan yi nga xam ne ni jàpp naa ni moom itam atte bi dal wàllu euh, nu mu tudd Benno Bokk Yaakaar moo ko waroon dalitam itam waruloon bokk ñoom itam li ñu gis mooy ñoom ci mbiru troisième mandat la ñuy def la ñuy wax waxuñu ci ñan la ñu war a andi assemblée ndax boo seetloo yeewi liste tutiliram jàllul ay suppléant am ñoo jàll ñan ñoo nekk ci suppléant yi ak lan la ñu andi pour man moo waroon nekk campagne waaye boo seetloo ñoom ñi jàllul ñoo occupé scène bi mel na ni daal ñu xaw a xeeb ñañ bëgg ñu dem toogaleen assemblée ndax bëri na ci Sénégal yi tey koo ci laajoon ñan ñoo nekk ci list yeew yi war ñoo toogal xam ñu ko donc yeeweeg wàllu dafa mel dañoo faussé campagne bi ci wàllu woowe ñoo ko tey wala teyuñ ko mooy la constat ñun nag dañu ñëw andi programme de législature maanaam bu ñu jëlee assemblée bi nan lañ ko bëgg a taxawalee andi li ñuy wax charte du député ñu jàpp ni butéel la mu def rek la sañ bay xeeñ député bi ci boppam kan la war a doon kan la ñu war a tànn bu doon député mooy ku am jotu assemblée mooy ku xam soxlay askan wi mooy ku jege askanam noonoo tax ba ñu tëgg sunu contrat de législature autour de loolu ñu ni comme rôle député su weesoo voté loi saytu loi mooy contrôler action du gouvernement ba pare toogal askanam luy soxlaam mu xam ko day nekk ku woyof day nekk ku disponible ba pare ñu ni assemblée ñi muy doxee am na ci lu bari ay na yowén sénégalais xamuñu ko jot na nag ci jamonoy communication bi ñu nekk télé parlementaire bi rajo parlementaire revue parlementaire yi ñu koy def su ko defee askan wi di xam li ñuy liggéey ndax dégg naa ci ñenn assemblée ñu ni ñi ëpp ci ñi ñuy gis ci télé yi ci plénière yi ñaare sa duñu teewee ci commission technique yi dañuy bàyyi ba kii ñu def seen show ñun nag ñu ni kon commission technique yooyu nañ ko permettre mu public su ko defee nit ñi di xam député bi la muy liggéey su ñëwee def plénière yi aussi commission d'enquête yi ñuy permettre aussi askan wi ñëw di teewee di fekkee su ko defee nit ñi dinañ mën a réconcilier wu ak seen assemblée mais ñu teewal seeni gox ba pare tànn ñoo xam ne buñ xasee jéggi buntu assemblée dañuy desee doon député wu parti wala coalition dañuy taxawal seen askan. moo tax tànneef bi am ci solo ki ñuy tànn am ci solo ba pare ñu moytu ñi nga xam ne dañuy cumuler ay fonction bari na ñuy laaj réew mi jamono ñu laaj assemblée jamono ji ñu ci bari duñ fa dem. ay maire lañ député lañ damay faral di sànni xeer sama mag Alioune Ndoye bu plateau il est maire du plateau il est ministre de la république bu demee nekk député day démissionné dem doonaan maire yooyu itam ay naxee mbaay la noonu li laa koy waxee Bart ñoom ñi nga xam ne ak ñoom Ousmane ñoo doon wax ni cumul de fonction yi dañ ko war a moytu ñoom Bart yàlla dénk na ko muy gone nekk maireu Ndakaaru gis nga mënta boole Ndakaaru sax ak ak ak euh, Sacré-Cœur Mermoz kon bu ne da koy booleeg député bi am na fuy sooxee ci liggéeyam moom ak képp ku nekk ci cumul ñun ñu ne yooyu dañ ko war a def yooyu ñu jëlee ko fi bu ci gàttal daal. Hmm. député melokaan la député taxawaay la député jikko la. ndax loolu moo lay permettre nga mën a juger sa akulaay taala damay faral di ko wax samay xarit ma ni ñun ñi ko bëgg a doon war nañ saa yu suñu yeewoo ñu teg band maam Abdou Aziz Dabakh boobu mi mu waxee député yi. melokaan bi ñu war am. Hmm. ak yi leen di xaar xam ni bes penc dana am nettali dana am ba tax na nit kuñ ci mën ci tab ak foo ci mën ci bokk man nag bokkuma ci ñu naan man dama jàpp ne fu baax am na fu nekk ci ñun dama naan kii voté kay na xool bu baax kami voteel ndax lamboo naag jikko yoo xam ne ni bu toogee assemblée dana fa mën a wax aqulaayi taalaam dana mën a taxawaay taxawaay ñun ci loolu la ñuy woo nit ñi waaye woote wuñ ci xaxar woote wuñ ci xaste woote wuñ ci gaaruwaale ci liggéey lañ woote ci kaw yiw ci kaw dal ci kaw bëgg sa askan te nag suñ koy wax war na ñoo mën a gëm suñu liste bi boo ci xoolee ñi ci nekk su weesoo président Pape Diop mi nga xam ne def assemblée ma nga fa tegee ci wàllu gestion ba mu nekkee président waaye ku gone gu mel ni alin Sow ñaar fukki at ak juróom-benn ñu dénk ay milliards tigga tojul ndox débordé wul ñu mel noonu fi pour ñu jaar doon ay royukaay ñu mel noonu ñoo nekk sunu ay liste ñu yaakaar ne bu leen tabbee yóbbu leen assemblée nationale danañ fa taxaw taxawaay bu am solo boo ñëwee ci Ndakaaru itam noonu ñu moo tudd Alioune Badara Kébé nekk football nekk champion du social armée lu Bel Air yi armée lu Yoff yi armée lu Saint-Lazare yi moom moo koy bay li tax ma tudd armée nag dafa baax ñun ñii politique ñuy bàyyi xel ni bés dina jot ñu suul ñu ci armeel yooyu ba bu ñuy dem war nañ xool suñu digganteeg yàlla rafetal li ñuy def. Mhm. ñu jeexal ak euh, wàllum ndox mi nga tudd léegi inondation moom Sénégal léegi daanaka miis nañu ko keroog ba mu tawee rek daanaka taw yu njëkk la sax gis nañu ni dëkk bi mel te moo ne ay milliards yu baree bari def nañ ko euh, ci plan décennal bu waroon na lalu ci fukki at ndax jàpp nga ni euh, plan ba dox na waaye itam assemblée nationale gi ngeen bëgg a dem lam ca waroon def ci saytu koppar gi topp liggéey yi def na ko. maanaam inondation du rek mbiru Sénégal ndax ay na yéwén kuy wax na nga waxal sa digganteeg yàlla waaye waaye dama ni liñ ci dugal ci milliards bari na lool ba war nañ ko saytu ñëwuñ tamit nag ni dara baaxul ndax soo demee waxi naan Nimzaat soo demee Jidda Caaray kaw soo demee Dalifor ay na yéwén nam doon taaye ba ci fii ci ci ci ci ci ci wetu CICES bi nam daan taaye am na lu ci wàññeeku waaye boo demee Kër Massar mbir maa ngay gën a làbbali ñu ni nag ñun war nañ taxaw plan décennal bi ci fukki at la war a mille 2012 la ba 2022 kon mu ngi war a jeex war nañ taxaw ñu saytu ko xool li mu ci def euh, am na une commission enquête parlementaire aussi ay na yéwén assemblée bii passé du lépp a bon du ñëpp a itam. Hmm. parce que itam bëgg fa lu warul tax rek ñu jël lépp sapp ko gaañ. amoon na benn enquête parlementaire bu gaañi defoon ba génn ci ay rapport waaye li nga xam ne ñoom mënuñ ko woon def mooy nattukaay ci wàllu xaalis loolu nag ñoom dañoo digaloon nguur. moom mu def enquête mu mu ubbi ci def benn audit externe ñu xam ni mu toll. Mhm. li ma mën a wax daal mooy ni nit ñi daal maanaam perception ci wàllu communication da cee am solo. Mhm. Sénégalais yi jàpp nañ ni li ñu dugal ci xaalis bari na bari boo xam ne ni par rapport ak njariñ li mu waroon andi des na loolu nag état lay incombé. mu taxaw def li ñuy wax audit externe ba pare informer population yi waaye man damay proposer lu gën a sori loolu. Mhm. assainissement day problème bu métti rëy ci Sénégal. te loolu nag réew moom amul pour développement am dina jafe ñun nag li ñuy faral di wax mooy bu nawet jotee ñun ñëpp dañuy wax inondation bu e buñ dawalee tuuti bu mbiri méttee état andi or ORSEC jot nañu taxaw seetlu xool ñan ñooy yëngu ci assenissement bari na ay kuréel yu ci yëngu te duñu yëgoo ndax jotul ñu harmoniser position yooyu ndax jotul wax ji mu weesu mbiru parti weesu mbiru état doon mbiru Sénégal ñi ci am xam-xam yëpp ñu dajal leen ci ñu waxtaanee ko ndax at mu jot même problème yi est-ce que jotul ñu war ci taxaw ñun daal loolu la ñuy ñu taxaw foofu ndax inondation bi métti na ñu ciy dund métti na ba pare nag ñu situer responsabilité yi ndax bu fekkee dañoo war a toxal dëkkub lëmm ñu am courage toxal dëkkub lëmm waaye ba buñ ci toxalee nag buñ delluwaat ci mbir yi parce que ni ñuy joxee suuf si ni ñuy joxalee kii duñu xool fu taa yooyu yëpp ay négligence ñoo ko waral jot na nag ñu taxaw ñun ñëpp seetlu ko su ko defee ñu ànd ci saafara boo xam ne ni day mën a law di dem hmm. waaye at mu nekk rek ñu taf yëngal ba déwén ci ñu dellu si di ko waxaat jàpp ma ni mooy di gën ci Sénégal ñëpp lay interpeller nag état société civile opposition opinion ñu def ko un débat national dépassionné pour ànd ci ay solutions yoo xam ne ni day jëmale suñu réew rek ca kanam. jërëjëf Moussa Diakhaté amoon nañu mbégte dalal la ci matinalu Rewmi FM tey yaay porte parole parti Bokk Gis Gis nekk itam euh, candidat ci élection législative yi ñu investir la ci liste euh, coalition Bokk Gis Gis euh, liggéey ca juróomeelu palaas ba jërëjëf Moussa. jërëjëf waa Rewmi FM ñu leen di sant leen gërëm.